ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci daje bi ñu daje ci ab néegam ngir fas yéene jël benn bind boo xam ni dafa bokk ci liy leeral suñu diine ñu tuddee ko fiq ñuy sukkandikoo téere bi di risaala bu ibn abi zayd al qayrawaani rahimahullah ñu ngi ci baabun fi ahkaami dimaai wal xuduud muy fanweereelu bunt bi ak juróom-ñaar ñu war cee jël tey suñu bind bu mujj incha allah ñi ngi toll fi ñuy wax wa ala alqaazifi alxurri alxadd wa ala al mi ngi noonu alqaazifi alxurri alxadd samaanuun bu dee ñu yoru traduction bu xonq bi ñu ngi ci page quatre-vingt-neuf bi quatre-vingt-dix-neuf bi ci suuf quatre-vingt-dix-neuf bi bu dee ñu yor samaru daani bi ñu ngi ci page cinq cent quatre-vingt-seize ci ligne bi féetee bi jëkk ca kaw page cinq cent quatre-vingt-seize ci ligne ba jëkk ca kaw mi ngi noonu wa alal qaadifi al xurri ñu ngi nekk tey ci juróom-ñetteelu fan ci rabiul awal di tombeek le vingt-cinq ci octobre ci deux mille vingt su dee mbokk yi bokk nañ ko gis kon day wax ne wa ala alqaazifi alxurri alxaddu ki nga xam ne dafa tuumaal nit ki njaaloo fekk gor la dees na teg ci moom benn xadd xadd mooy luwa ba ñuy teg ci nit ki ngiree yar ko ca waaye jajji ca keneen ku dul moom samaanuuna mu nekk juróom ñetti fukki yar wa ala al abdi arbauuna fi l xasfi bu dee ne ab jaam ñiin fukk lañ koy dóor ca tuumaal ga wa xamsuuna fi zina juróom fukk lañ koy dóor ca njaaloo ga walkaafiru yuxaddu fi lxazfi samaaniin yéeféer moom bu tuumaalee juróom-ñetti fukki yar lañ koy dóor wala xadda ala qaazifi abdin aw kaafir kenn du teg loi boobee ci ki tuumaal ab jaam wala mu tuumaal yéeféer wa yuxaddu qaazifu sabiya bi zina waaye dees na teg loi ci ki dóoral ab jànq bu ndaw ci njaaloo in kaana misluha yu ta'u su dee ni ku tel ne moom mënees naa ànd ak moom ci lal mënees naa séeg moom wala yu xaddu qaasifu sadiyi kenn du dóor nag ku tuumaal xale bu góor wala xadda ala man la yablugu fi xasfi wala wat'i kenn du teg luwaa it ci koo xam ne majeuragul bu tuumaalee kenn du ko dóor bu njaaloo kenn du ko dóor mi ngi noonu mbokk kon fii day wax la nga xam ne mooy tuumaal nit ki njaaloo dañu xam ni ci bakkaar yi gën a bon ca la bokk suñu borom subhanahu wa taala nee na walladina yarmuuna almuhsanat summa lam yaatu bi arbaati shuhada fajli fajliduuhum samaanuuna samaaniina jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada ulaikum alfasiqun suñu borom mu ne ki nga xam ne dafa tuumaal nit ki njaaloo ca tuumaal googu indi wu ca yeneen ñett ñu ànd ak moom muy ñeent da ngeen ko dóor téeméeri juróom-ñetti fukki yar te ñoom day ay faasiq lañu loolu kon muy wañe ni bakkaar bu grave la xanaa lu dul ña nga xam ne dañoo tuub mi ngi noonu bokk na ci it mbokk nettali tuuma te loolu yàlla nattoon nañu ko ci sunu journaux yi da ngay gis ne néew na nga toog benn semaine te déggoo ñuy tuumaal ay nit lu jëm ci wàllu njaaloo ngalaaw yow julit bul nekk di wax ci yu demee noonu ndax ki nga xam ne dañ koo tuumaal mbir ma dadul yem ci moom kese waaye xatta ay jegeñaaleem rawatina ay doomam ñoom ñëpp dañuy dugg ci mbir boobee islam nag prévoir ni ki nga xam ne dafa ñëw ni diw da koo gis muy njaaloo wala mu taxaw ci mbooloo mi ne ko yow njaaloo kat bi ku mel noonu dañ koy war a duuma juróom ñetti fukki yar su dee ni ab jaam la genn wàll ga lañ koy dóor su dee yéeféer moo tuumaal jullit it noo ko la noonu lañ koy def mi ngi noonu mu ñëw ci ki nga xam ne ab jànq la tuumaal jànq boo xam ni manes naa ànd ak moom ci sëy masalan dem na ba am ay sept ans huit ans nga ne kii kat dañ doon jaaloog moom mu ne ko mel noonu dañ koy dóor su dee xale bu góor nag bu toll ci ay sept ans huit ans nga ne kii da doon jaaloo loolee moom ku ne xam ne waxi neen la allahuma lu dul nga ne dañ ko doon tëddee moom ci boppam lañ doon jaalool ci wàllu pédophilie su boobaa boo ci indi lay preuve dañ lay war a dóor la nga xam ne mooy juróom ñetti fukki yar léegi nag muy wax problème mu xale xale bu ñu fekk muy sëy ak moroomu xale loolu mbokk jullit islam prévarul ñu teg ci moom li ñuy teg mag ñi di ko dóor téeméeri yar allahuma rudul ay way juróom ñoom ñooy xool yar bu méngoog buñ ko mën a yar ba loolee mu bàyyi ko donte ne nii xam nañ tey ji rawatina boo demee Occident xale yi ay onze ans douze ans la ñuy commencé di sëy loolu ku ne xam na ko ala kulli xaal bu ñu tegul ci umluwaaw lislaam it wares na ko duma duma yoo xam ni loolee dootul dem di ko defati kon loolu mooy bind bi nga xam ne jëkk nañ koo jël su doon dañuy jëlaat beneen mu ne wa man nafa rajulan min nasabihi koo xam ne dafa dàq góor ca la nga xam ne mooy ak mbokkoom ngi noon di géñoom fa alayhi lxaddu ku mel noonu dañuy teg ci moom loi wa fi taaridi lxaddu la nga xam ne it moom la ñuy tuddee ak gaaruwaale loolu it loi da cee tege wa man qaala li rajul képp ko wax benn góor yaa luutii yow góor jigéen ji xudda fokk ñu teg ci moom loi wa man xazafa jamaa koo xam ne mbooloo la bokk tuumaal fa xaddun waaxidun yalzamuhu benn loi rek day tege ci kawam liman qaama bihi minhum ci képp kenn ci mbooloo ma ku ñëw yóbbu ko ci attekat ba summa la shay'a alayhi gannaaw ba nag dara dootu ko war maadaama dóor nañ ko kon fii day wax ni ci jàkkaarlu ñen na ko cin xam nga ni yow fiñ ne mooy sa baay du sa baay loolee kon woñe ne yaayam ab njaalookat la fokk mu indi ñeenti seede ci wax jooju bu dul looloo dañ koy duma naka noonu li muy tuddee taarit masalan ngay xulug nit ki ne ko en tout cas man de duma doomi njaaloo wala man de sama yaay du woon njaalookat loolu yi ku ne xam ne ne yaa ngi koy xama yaa ngi wax moolu mi ne kii kat moom yaayam njaalookat la woon su ko defee loolu di ngay gis ne képp ku ko yóbbu ci loi waa ji wax wax ju mel noonu dañ koy dóor la nga xam ne mooy juróom-ñetti fukki yar su dee indiwul ay preuve ca wax jooju mu wax li ñu waxoon sànq ci yow njaalookat bi loolu la ñuy wax ci yow góor jigéen bi képp ko jàkkaarloo ñen na ko góor jigéen nga wala nga ne ko njaalookat bi kooku it buñ demee ci loi fokk ñu dóor la juróom ñett fukki yar mi ngi noonu ndax loolee nga xam ni noon nga mën a yàqe ab deram ca rawatine wax ji nga wax ci mbooloo soo ko xisee ba wax su amee ñu ko weddi it du ñàkk ñeneen ñoo xam ne dañ koy gëm loolee kon mi ngi noonu allahuma lu dul ni bu doon dafa xas mbooloo fekk benn masalan benn famille sax mu ne yéen seen yaay njaalookat la même bu doon fukki nit su dee ne jël nañ ko dóor ko la nga xam ne mooy dóori ko tuumaal doonte ne mbooloo la tooñoon su boobaa da ngay gis ni loolee ñu ko def dafay kay teggil a tooñ nga ca des allahuma lu dul daa tuumaal kenn ñu duma ko mu wëlbati tuumaal keneen waaye bu dee tuuma ji moom benn tuuma la suñ ko indee ci mbooloo bi ba duma ko rek duma yooyu li muy won mbooloo mi mooy kii kët lim wax ay fen la tuuma la jum duural moo tax ñu indi ko ci mbooloo mi duma ko fi juróom-ñetti fukki yar loole di raxas deru ña nga xam ne def leen a tuumaal su dee dañuy jël beneen bind mu ne wa man karrara shurbal xamr koo xam ni dafa baamu naan gam doon naan sangara aw zina walla mu njaaloo ay njaaloo yu bari fa xaddun waaxid benn loi rek la ñuy teg ci kawam benn punition bi rek la ñuy teg ci kawam fi zalika kulli ci lépp loolu nga xam ne am na ko wa kazalika man xazafa jamaa naka noonu ki tuumal mbooloo wa man lazimatuhu xudud koo xam ne dafa lënkoog moom ay loi yu ñu war a teg ci moom wa qatlun ak rey guñ ko war a rey fal qatlu yujziu an zalik rey guñ koy rey dana doy yóbbaale lañ ko waroon a def yépp illa fi lxazf xanaa lu dul ci tuumaan fal yu xadd qabla an yuqtal des na ko dóor dóori tuuma avant ñu koy rey ñu ngi noonu mbokk day wax fii ci wàllu sangara xam ngeen lislaam dafa araamal sangara araamal gi mu ko araamal yemul ci ki ka naan kese waaye yonent bi alayhi salaam lim na fukk yi ko wër ñu ngi noonu ka koy defar ka koy yenu ka koy servir ka koy jaay ka koy jëndi ila axiri ba mat fukki nit léegi nag waa jikka naan moom gannaaw ba naanaat na ko avant ñu ko yóbbu ci loi du seede ne man kat fekk naa ko fii muy naan keneen seede ne fekk naa ko fii muy naan ndax naan bu nekk lañ koy dóor déedéet suñu ko jàppee dóor ko dóori yar yar yoon même bu doon fukki naan loolu da koy yóbbaale loolu la ñuy wax ci njaalookat bi bu dee ne ñii seede nañ na njaaloo na ñeneen seede na njaaloo na ñu doog koo indi ci loi su boobaa it benn loi bi rek la ñuy teg ci kawam bu dee mosul sëy téeméeri yar yi rek lañ koy dóor ci mboolem njaaloo yooyu mu njaaloo loolu nag buñ koy wax mi ngi aju ci digganteem ak la nga xamee ni nii moom mooy luwaay amma bu dee digganteem ak boroomam ki njaaloo benn yoon du yem ak kii sax ci njaaloo am na benn musiba bu rëy boo xam ne lenn ci nit ñi dañ koy def masalan benn waay toog na di wax mu ni dafa ëmbal benn xale bu jigéen nee na ma ñëw ne damay fanaan ak moom nee na waa kër gi ne ma doo fi fanaan mu ne nag damay fanaan ñu jëli seen benn góor bu ñuy dëkkal bi mu ñëwee mu ne ah comme lii am am na ba pare kay bàyyi leen ko mu fanaan loolee mbokk da ngay gis musiba la da ngi noonu am na ci ay soxna yoo xam ne nii suñu ëmbalee seen doom bu jigéen dañ koy ñaax ne ko nay dem ci ki ko ëmbal di fanaan ak moom ndax bu dul looloo buy am doom doom ji day metti mbokk loolu ay tappale la loolu ay tappale la maa ngi fàttaliku suñu benn imam bu ko doon wax rahimahullah mu ni bés bu ne nga jël sam xar yóbbu ko ñu tëbal ko buñ ko tëbalee fa lay jóge ëmb ba wasin sans problème kon lu tax sa doom bu jigéen bi ñu nax ko ba jaar fañ jaar ak moom nga ne nag ne buy am doom day metti kon nañ ko bàyyee gi waaj déedéet mbokk jullit njaaloo gu ñu njaaloo loolee bakkaar bu garaaw la boo xam ne bokkul ak ba ko jiitu dara am maa nag bu dee ci wàllu loi bi moom suñ koy tegee benn loi rey moom mu ne suur rey rey nit ñaari yoon waaye waaye loi ba téeméeri yare it buñ ko tegee benn la jeex na loolu la wax ci kii xas mbooloo waxoon nañ ko sànq muy wax nag ci koo xam ne tey dafa ñëwoon ay loi war a tege ci kawam masalan moom sàcc na sàcc na dañoo war a dagg loxoom jam na nit dañ ko waroon a jam waaye rey na dañ koo war a rey mu ne su boobaa buñ ko reyee rek dana doy jarul ñu naan dañuy dagg loxo bi jam ko doog ko rey comme rey am na ci rek nañ ko rey moom mu jeex mu ne nag ba mu des ci tuumaal nit ki njaaloo mu ne ku mel noonu su dee dañ ko war a rey it pour raxas deru ki nga xam ne da koo tuumaal fokk dañ koy jëkk dóor juróom ñetti fukki yari yoon ba raxas deru kum tuumaal moom ci boppam nag ñu dog koo jël dog koo rey loolu kon la wax ci wàll googe buñ jëlee beneen bind mu ne waman shariba xamran ku naan sàngara aw nabisan wala mu naan la nga xam ni am njar la mu daan defaree tàndarma ak raisin nga xam ni soo ko bàyyee ba mu yàgg su foroxee boo ko naanee da ngay mandi mu ni nabisan muskiran mooy njar boo xam ne day mandal ku mel noonu xudda samanina daañ ko dóoru juróom ñetti fukki yar sakira am lam yes ko am lam yes ko mandi na wala mandiwul wala sujina alayhi doonte ne kenn du ko tëj ngir loolu wa yujarradu almahdud ki ñu war a dóor yari yoon dañ koy summi wala tujarradu almara bu dee jigéen nag kenn du ko summi illa mimma yaqiiha aldarbu lu dul yére ba nga xamee ne nii suñ ko su ko suñ koy dóor du ko yëg yére boobu moom dañ koy dindi bàyyi ko yére bu woyof boo xam ne dana sutural awraam ca dana yëg dóor ya wa yu jëla daani qaa'idayni buñ leen di dóor dañ leen di dóor fekk ñu ngi toog wala tuhaddu xaamilun xatta tada kenn du dóor aji wasin lu dul daa aji ëmb lu dul daa wasin wala maridun musaqalun xatta yabra lu dul ku feebar gannaaw ba ku feebar feebar bu diis xanaa lu dul daa wér wala yuqtalu waatiul baahima kenn du rey koo xam ne dafa séeg bàyyuma wal yu aqab waaye nag dees na ko teg la nga xam ne nii moom mooy benn punition mi ngi noonu mbokk ki day wax ci naan sangara wala lu mën a màndal yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu waxoon ni lépp luy màndaal rek sangara la dem nañ ba jamono dox ba nit ñi di màndi lu ñuy tux yamba ju bon ji tasaaroo ci ndaw ñi di màndi ay pion yu ñuy naan ay comprimé yoo xam ne dañ koy jël di ko naan di màndi ay pikiir yoo xam ne dañ koy pikiiru waaye comme yeneen ci yàlla moom yàllaa ko yónni moom waxoon na démb ne kullu muskirin xam lépp loo xam ni nit ki bu ko jëlee mandi rek sàngara lañ koy considéré kon mu ne nag ki nga xam ne dafa jël sàngara kon na doon daa tuxam daa mandeem daa pikiroom lu mën a doon mu ne ko mel nii dañ ko dóor juróom ñetti fukki yar na doon mandi na wala mandiwul waaye daal maadaama xam nañ ne jël na luy mandal dañ ko dóor juróom ñetti fukki yar mi ngi noonu allahuma mu ne nag du doon ku ñuy tëj mu ne ki nga xam ne dañ koy dóor bu dee góor yaramu neen la ñuy koy def ay gannaawu neen dana sol tubay waaye yaram bi ci kaw yaram bi la ñuy dóor directement amma bu dee jigéena moom des na ko sutural ci loo xam ne du tee dóor ñi mu yëg ko su ko defee ñu toggal leen jigéen bi nga xam ne daa ànd ak ëmb su defee lu jar ñu dóor ko wala lu jar ñu rey ko kenn du ko dóor kenn du ko rey du dul dawsi naka noonu it ki nga xam ni bi ko àtte bi dabee da koo fekk ci feebar bu tar ku mel noonu it kenn du ko dóor bu doon ko ñuy rey moom des koy rey amma bu dee ko ñuy dóor moom kenn du ko dóor ndax bañ dóor ya far ko rey benn yoon ca kenn waru ko woon a rey lim mujj mooy kii dem di sëy ak bàyyuma mu ne ko mel nii kenn du teg ci loi loi njaalo waaye ka nga xam ne moo yoon atti réew ma mooy xool lan la koy def ba ba jëf ju bon joojee mu bàyyi ko doonte ne ni am na ay xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne nee na képp koo xam ne da ngeen koo gis muy séeg bàyyuma ni ngeen ko rey ngeen reyaale bàyyuma ba naam waaye la nga xam ne mooy mazhab malik ñoom dañu naan xaram na nit séeg bàyyuma te buñ ko jàppee wares naa teg ci moom mbugal waaye nag du yegg ci ñu ne dañ koy rey mi ngi noonu mbokk wallahu aalam xam naa comme niñ koy defee rek bala ñoo gën a sori ñu bàyyi mbokk yi ndax am nañu laaj yoo xam ne dafay aju ci li ñu jot a jàng ku am beneen laaj bu ci bokkul nag mu bàyyi ba darsi bi pare insha allah mi ngi noonu waaw waaw bismillah noonu mu ne jigéen bu sëy waaw waaw waaw kan mooy jigéen bi ëmb jëkkëram fase ko lan mooy atteem waaw loolu de moom daani ko bokkul ci li ñuy jàng sëñ bi loolu moom bokkul ci li ñuy jàng ni waaw xanaa daal ñu wax ci rek ne atteem moom mooy fase gi dog na heure boo fi yéeg amagul doom dañ koy considéré ne soxna jëkkër ji la ba léegi bu jëkkër ji dee day donn bu moom bu dee jëkkër ji day donn heure boo xamee ne nii da ko bëggoon a jëlaat comme jabarit du ko jox can du ko jox dara day seede war ak ne jëlloo si naam su dee nodd boobu mooy ñetteelu fase ji amma bis ba mu amee doom nag ca la idda ba jeex bu doon da koo fase tey fase bi seede yi seede ko ndaw si am lu ko metti wëlbati ko am doom idda ba jeex na idda ba jeex na su ko defee loolu la ñuy wax ci wàllu googee incha allah ñoo laaj ci question yi jëm ci liñ jot a jàng naam bismillah lii la ñuy wax mooy ki nga xam ne dafa dem ci attekat di seede njaaloog doomu aadama loolu bokkul ak tey nga gis doomi jaambur wala soxna jaambur muy nekk ci place tuuma nga dem ca kilifaam xamal ne ko na nga bàyyi xel diw dey mi ngi nekk ci place tuuma place tuuma nag bokkul ne maa ko gis muy njaalo gis naa diw ak diw ñu ànd ci hôtel ba gis naa diw ak diw ñu ànd ci oto ba dem looli nga wax bokkul ak gis naa ko muy njaaloo islaam jàng nañ suñ darsi bi passé ne bu doon ñeenti nit dañoo ñëw kii ne ñetti ñi ne ñoo ko gis muy njaaloo la ko góor ko yor ma nga ci biir ku jigéen ñeenteel bi biñ ko woo mu ne ah man dal gis naa leen ñu def njara mu leen tëdd di loolu waxoon nañ ko dimanche passé loolu moom kenn du ko wax dara kenn du ko teg ci loolu donc dafa am différence entre nga xamal nit ki ne sa doom ji sa soxna si day mi ngi nekk ca place su tuuma ak nga taxaw ci attekat bi ne maa seede muy njaaloo di seede goo xam ne moom buñ ko saxalee dañ koy rey mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam ala kulli xaal lépp lu jëm ci wàllu njaaloo islaam da ko indi ci ñeenti seede te ji ki ñëwoon ne gis naa diw muy siyeg bàyyu ma loole da ngay gis ne ak tuuma la boo xamee ne ni fokk mu mat ñeenti seede islaam doo ko nangu loolu te ñi nga xam ne dañoo méngale siyeg bàyyu ma bi ak njaaloo rawatina borom xam-xam yi gis ne sax dañ koo war a rey ngir hadis boobee nga xam ne nii wax nañ ko ne yonent bi alayhi salaam noonu la ko waxee wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam gis ku ànd ak góor jigéen nit du tax nga seede ne moom ab góor jigéen la mënees naa wax daal ne diw dey ma ngay ànd ak góor jigéen ñi loolee mën nañ su ko wax xale bu góor ba ngay gis mu dem ci góor jigéen ñi mën ngaa dem ci waajur ne leen ah seen doom bi day ma ngay ànd ak góor jigéen ñi amma yow doo taxaw ne seede naa ne moom kat mi ngi nekk ab góor jigéen ci mi ngi sëy la nga xam ne muy sëy boobee loolu daal mooy différence su entre comme niñ leen ko waxe woon placeu tuuma ak placeu seede jëf ji ci boppam wallahu subhanahu wa taala aalam naam aleykum salaam naam ala kulli xaal ñun suñuy loi yi suñuy loi la waaye bu doon te ne tey jii jigéen dafa ñëw bi mu ñëwee ci ak tàng tàng bi ànd ak yuuxoom ne diw moo yegg ci man jàpp naa loolu lañ mujjoon a jàng dimanche passé waaw diw diw daf ma siif dafa yegg ci man ñu vérifier ci li nga xamee ne nii attekat bi dana ko gëstu ba xam ne ndaw si kat li nga xam ne nii wax na ko dëgg la su booba attekat bi dana ci jàpp ndax ki nga xam ne moo def loolu ca tàng-tàng ba la ñëw wax loolee amma bu doonte ne loolu amu ca moom daa xëy rek benn bis tuumaal ko góor ne kat diw moom dafa doon koo xam ne daf ma siif wala dafa njaaloo ko man te amuñu benn preuve boo xamee ne nii mënees na caa sukkandiku ci loolu su boobaa moom ci boppam dañ koy dóor juróom-ñetti fukki yar bu dee nag ca tàng-tàng ba loo xamee ne ni tax na ay nit seede ko comme booy xoli bind buñ mujj a jàng mooy ñoo xam ne gis nañ ne waa ji moo ko jël këf ko yóbbu ko wala kat bi mu génnee jànq la deret baa ngi tuuru mu ni diw moomu siif loolu yi ñoom ci preuve direct loolu attekat bi day sukkandiku ci loolu ala kulli xaal wàllu tuumaal moom dafa bokkul ak wàllu seede ngi mel ni rek jëkkër ak jabar tey jii jëkkër ñëw mu ni sama jabar maa ko gis muy njaaloo kooku kenn du ko laaj ñeenti seede su boobaa su soxna si nangoo dañ koy rey su nanguwul waa ji day taxaw giñ ñe ñeenti ngiñ ci ne wax naa dëgg juróomeel ba mu ne yàlla rëbb yàlla wàcc ci man bu dee damay fen soxna si ñu waatloo ko bu nanguwul waat ñu rey ko bu nangoo waat ñu bàyyi ko ak boroomam loolee kon dafay nekk acte spécial bu bokkul ak ki ñii ñëw di seede ak yi nga xam ne moom ci boppam moo indi plainte ci kanamu buur ne diw moo ma def nangam wala diw moo def nangam di sama soxna mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam mu ne ku góor ki waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw ala kulli xaal li ma ci liñ la ci waxoon mooy daal li waral loolu mooy loo amul ci dëkk bi waaye bu fi loo amoon loolu kenn xalaatu ko parce que loo amoon ñu xamoon ne dafa njaaloog moom dañ koy yóbbu door ko téeméeri yar bu ñu xamaate dafa njaaloog moom dañ koy dooraat téeméeri yar xanaa kay boo gisee ñuy wax mooy waa ji kat nekkoon na di njaaloo ay njaaloo avant ñu koy yóbbu ci loi dañ koy yóbbu ci loi masalan ñu ne gis nañ ko njaaloo tel gis nañ ko njaaloo tel benn loi lañ koy teg amma ki nga xam ne dafa ëmbal xale bu jigéen ba pare ñu bàyyi ko mu continuer ak moom nekk ak moom loolee moom la koy war rek mooy ñàkk loo am al muhim daal lañ ci wax mooy ki wax ki ñu jàpp yóbbu ca attekat bi avant ñu teg ci moom loi même bu doon fukki yoon la njaaloo it benn loi lañ koy teg loolu diggante mag nit ñi la amma digganteem ak boroomam subhanahu wa taala njaaloo gu nekk bakkaar spécial la mën nañ wax sax ñaareelu njaaloo bu moo gën a garaaw bu jëkk ba ndax defoon na musi war koo tuub tuuba ko mu dolli ci beneen wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli xaal kon ñu jël bañee beneen bind mu ne kon mu ne wa man saraqa ku sàcc rubu dinar lii di ñe kaaru dinar zahaban ci or aw ma qiimatuhu wala boog loo xam ne valeur am yowma sariqati salaasatu darahim bi mu koy sàcc nekk na ñetti dërëm min al urud ci lu méng ci loo xam ne marchandise la aw wazna salasati darahim wala poids ñetti dërëm fidda ci xaalis xuti ah ku mel noonu des na dagg loxoom ida sadaqa min xirzin su dee dafa sàcc ci foo xam ne nii dañ koo denc wala qataa fi l xulsa deesul sàcc nag ci loo xamee ne nii dañ koo rocci non wala qata kenn du dagg nag fil xulasa ci loo xam ne waa ji da koo rocci rek ci kanamu boroom wa yaqta'u fi zalik des na dagg ci loolu yaddu rajuli lii di loxo góor wal mar'a ak jigéen wal abd ak jaam yëpp summa in saraqa su sàccaatee beneen yoon kuti at rijluhu min xilaaf dañuy dagg tànkam ba ci ak jàllawle summa in saraqa fa yaduhu bu sàccaatee ñu dagg ñaareelu loxo ba summa in saraqa fa rijluhu su sàccee ñu dagg ñaareelu tànk ba summa in saraqa bu sàccaatee julida wa sujina ñu duma ko tëj ko mi ngi noonu mbokk kon day wax ne ci wàllu sàcc nga xam ngeen sàcc te dañ cee war a yor njaboot gi bokk na ci bakkaar yu grave ñu xamal njaboot gi ni ku yàlla nattoo nga ñàkk da ngay toroxlu dellu ci yàlla ñaan yàlla sabablu te bañ a xalaat ni maa ngi dem di sàcc islam bu doon dalaa jàpp te sàcc dañoo war a dagg sa loxo bala ñoo dagg sa loxo nag da nga dañuy xool ndax li nga sàcc mat na rubu u dinar te loolu buñ koy xool day méngoog lu tolloog ay vingt cinq mille ndax rubu dinaar mooy un gramme d'or bu teg tuuti rek mu ngi noonu day méngoog lu jege vingt cinq mille bu dee ci or bi lañ ko xool bu doon ci xaalis bi lañ ko xool moom daanaka ay cinq mille francs lay doon ay ala kulli xaal bu fi attekatu lislaam nekkoon mooy xool ndax lii di xadd bi da koy teg ci or wala da koy teg ci xaalis almuhim daal la gënoon a siiw mooy ci or lañ ko doon xool mooy fokk mu sàcc rubu dinaar moom ngeen di dégg suñ demee ci takk yi ñu naan can bi ana rubu dinar bi ndax lu mel ni imaamu Malik ñoom dañoo gis ne comme nit ki bu sàccee lu yées rubu dinar kenn du tuur deretam kañ la ñuy tuur deretam mooy dafa sàcc rubu dinar ñu ne kon tamit ki nga xam ne dafa takk soxna rawatina jànq bi nga xam ne da ngay nar a tuur deretam fokk nga joxe alal ju mat rubu dinar donc ñoom seen can donc il faut mat ay vingt cinq mille donte ne ne da ngay dégg fi naan rubu dinaar ñu naan ay six mille ak cinq mille xamuñu lu xew waaye rubu dinaar mooy un gramme d'or bu teg tuuti kon ku mel noonu bu dee dafa sàccee foo xamee ne nii dañ koo denc loolu la ñuy tudde sàcc am naa tey jii waa ji ñëwoon ci jaaykatu dàll bi wala jaaykatu bitig bi mi ngi teg li mu teg nii mu daal di toog rot ci dara dugal ci poche am ku mel nii buñ ko jàppoon dañ koy duma waaye kenn du ko wax dafa sàcc sàcc mooy lu ñuy jël tëj ko denc ko nga dem kenn ni ko fa nga jël ko yóbbu loolu la ñu tudde sàcc nga xam ne kenn xamul ko ko def ñu ngi noonu amma bu dee loo xam ne nii ci kenn denc ko loolu dañ koy tuddee xulsa loi rek dañ koy jaj ju duma ko waaye kenn du dagg loxo mu ne nag góor ak jigéen ak jaama ci yem ku sàcc dañoo war a dagg sa loxo yéen ñëpp yàgg ngeen dégg benn jigéen bu tedd bu bokkoon ci benn maxdum bi mu sàccee ca Madina ñu ne ah kii daal dagg loxoom dana nekk gàcce gu rëy ñu ne Usaama doo dem laaj yonent bi ndax amul lu mu mën a jotoo ci alal yonent bi mer mer boo xam ne jéggi na dayoo mu ne lii moo alagoon ñu jëkk ñi mooy bu baadoo la tegee ci ñoom defee ci ñoom njombe ah ñu teg ci moom lu am yàlla bi bu kilifa defee ci ñoom njombe ñu nëpp nëppal ko waaye maa ngi leen di seedeel ne bu Fatima sàccoon damay dagg loxoom loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mu ne nag waa ji sàcc kon lu ñu war a def mooy dagg loxo ndey jooram ki sàcc rubu ut dinaar dañuy dagg loxo ndey jooram wante ne nag attekat ba dana xool ndax kii mi ngi sagoom ndax kii kaza wa kaza avant ñuy dagg loxo ñu dagg loxo ndey jooram su sàccaatee dañuy dagg loxo tànk càmmooñam su sàccaatee ñu dagg loxo càmmooñam su sàccaatee ñu dagg tànku mi ngi noonu ndey jooram ala kulli xaal mbokk loi yi boo gisee lislaam di ko wax lu ci bëri sàcc dafay nekk jukko bu nekk ci doomu aadama loolu tax ak sàcckat dagg loxoom rek tax lu bay sàcc ndax jukko la boo xam ne nii daf ko jukko woo am na ñoo xam ne ni buñ toogoon ñetti fan lekkuñu naanu nit du tax jamais ci àdduna ñu sàcc waaye am na ñoo xam ne lu ñu mën a am it jutee ñu sàcc sàcc dafa nekk ci ñoom loolu tax islam prévoir lii lépp waaye kay da nga naan sax waa ki ki sàcc bañ dagg sa loxo sa tànk xanaa kay dul doo sàccati waaye ala kulli xaal loolu mooy loi bi nga xam ne l'islam da koo tëral mu ne nag su suñ demee ba dagg ñaari loxo yi ak tànk yëpp mu continue di sàcc kon nañ ko jàpp tëj ko moom doo dootu génne ci loolu mooy aju ci loolu ala kulli xaal mbokk kon naam buñ jëlee beneen bind mu ne wa man aqara képp koo xam ne daa saxal bi sariqatin ci sàcc goo xam ne sàccoon na ko xuti a des na dagg loxoom wa in rajaa uqiila bu dee dafa dellu gannaaw daañ ko teggil luwaa boobu wa garima sariqata waaye dana garantir ngir fay lam ne woon moo ko sàcc in kaanat maahu su dee loolu ma nga ca moom wa illa utbi biha bu dul looloo des na ko ko toppe wa man axasa min fi lxirz koo xam ne nag dafa jàpp ca lañ fekk lam yuqta xatta yuxraja sariqata min alxirz duñ ko nag dagg loxoom du dul da koo génne fañ ko dencoon wa kazalika alkafanu min alqabr ki demoon di sàcc càngaay ba ñu sàngee néew ba ca xabru ba fii fekk gañ ko fa fekk mu koy génne lu tax ñu dagg loxoom lu dul ñu fekk génne na ko xabru bi ba pare wa man sariqa min baytin ku sàcc ci kër goo xam ne usina lahu fii duxooli joxoon nañ ko ndigal ci mu fay dugg ko génn lam yuqata kenn du ko sa kenn du dagg loxoom wala yuqata al muxtalisu duñu sàcc duñu daggit koo xam ne nii dafa rot ci alalu nit ki ci loo xam ne nii waa ji yëgu ko donte ne waa ji denc ko woon loolu lay wax ci wàllu googee kon mbokk ci li muy wax fii rek day wax ni ki ñëwoon ne ah man de sàccoon naa nangam gannaaw ba mu wëlbatu ko ne sàcc ma ko loolee ñu nga xam ne dañ koo sàcc dañ koy koy toppe maadaama moo ko saxal ci loxoom moom moo ko saxal bu dee dafa nekk ak moom bu dee gisuñu koy dañ naan ko da nga koy fay waaye bu dee kenn amul preuve ne moo ko sàcc moom daal moo waxoon ay waxam tebbi ko jëmm ji nga ko tebbi day tax kenn du dagg loxoom waaye nag day tax tamit day fay loolee nga xam ne moo ko tuumal boppam muy wax tey jii waa ji ñu fekkoon masalan ubbi woon na benn bitik wala benn nangam di sàcc ñu fekk ko fa jotu ko génne nag waaye fekk nañ ko mu ne ku mel noonu dañ koy teg loi buñ ko duma waaye ka ñuy dagg loxo mooy ka génnee mbir ma fañ ko dencoon mu wax wax joo xam ne dina yéeme lool suñ jamono tey ji et pourtant lu amoon la ci sunu maam yi yàggul dara mooy ñàkk tax ba nit ñi dem ci armée li di dindi perkaal yi di ko jël di jaayaat loolu ko xam histoire sunu maam yi dans la crise des années trente nga xam ne yére amul woon da nga daan gis ñoo xam ne dañu daan nit ñi bu seen mbokk deeyee pexe bu ñu daan ko def ba lijjanti perkaal bu ñu ko sàngee dañu daan gis ñu bàyyi bu guddi ñu dem sulli néew bi génne perkaal bi dem di ko jaayiwaat mi ngi noonu loolu da ngay gis ne lu amoon la ci ñàkk loolu nag lay wax ne ku ñu fekk ngay def loolu tànk génnoo ko ci xabar bi kenn du dagg sa loxo ila xit donte ni yi mbokk comme ni ngeen ko xamee ay mbir la yoo xam ne téere bee ñu yóbbu ci ñu jàng ko waaye nag mbir la yu xaw a jafe gis suñ jamono tey amma bu dee ne ki ñu fekkee fa muy sàcce moom loolu moom bëri na ñu ki ñu jàppe ko fa muy sàcce su boobaa islam danaan maadaama yóbbu lu ñu sàcc jàpp nañ ko fi mu sàcc nañ ko duma waaye nag du jar ñuy dagg loxoom mi ngi noonu mbokk wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala kulli xaal ki nga xam ne da nga ko fase wax nañ ko sànq dafa am idda bu l'islam tëral idda boobee bu dee day gis règle mi ngi nekk ci mu gis ñetti règle doonte nañu fekk woon ba ñuy jàngalee mbir règle yi xam nañu ixtilaaf bi nekk ci borom xam-xam ndax laab gi lañ ci jublu wala deret ji ci boppam almuhim su dee bokkul ci ñi gis règle day toog diiru ñetti weer tant que diir boobu jeexul dañuy jàpp ni bu ko waa ji bëggaatee dañuy seedaloo rek ne sama soxna jëlaat naa ko jeex na amul can buñ koy joxe amul takk buñ koy takk ah ma bëgg a delluwaat
waaw mais ku jigéen ko bëgg a delluwaat bu waa ji bu ko waa ji bëggul kay waa ji bëggul kon kay bu ñuy wax delluwaat kay delluwaat moom ci boppam xa kiyam valable di valable mooy ku góor ki ko fase yow da nga ne dañ koo fase donc sëy bi balaa baaxaat ku góor ki moo koy jël ku jigéen ki bu bëggee delluwaat day ñaan ku góor ki mu takkaat ko mu bu dee ne nag delloo boobu nag laa ne ça dépend bu dee ci trois mois yi la su su waa ji d'accord day jëlaat ay bagages am rek dem ñu seedaloo ñaari nit kii kan maa ko fase woon delloo naa ko jeex na ñu considéré benn fase ngoog wala ñaari fase ngoog su doon ñetti fase moom amu ci droit am maa nag bu doon da koo bàyyi ba idde bi jeex su boobaa moo góor ñëpp a ci yem waaye nag du tee ba tey mën na ko takkaat su boobaa day indiwaat can ñu indi ñaari seede ñu seede ñu mayaat ko ko une deuxième fois loolee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah naam dafa am ci ki nga xam ni dafay agressé masalan arme la yor di agressé ku mel noonu moom la suñu borom bi di wax naan inma jazaa'u lazina yuharibuna allah wa rasuluhu wa aaya ba wax aaya ba jeex ku mel noonu attekat bi mooy xool naka la ñuy def ay mbiram lu ci bari dañuy atte dañ naan bu dee dafa tiital nit ñi rek te jotul jël alal su boobaa waa ji mën na ko tëj su dee ne dafa jël armam jël gaañ nit ñi jël seen alal su boobaa da ngay gis ni ko mel noonu dañuy mën nañoo dagg loxoom dagg tànkam su dee ne moom dafa doon koo xam ne ni dafa rey ko mel noonu dañ koy rey loolu mooy agresseur bi nga xam ne moom dooleem la yor loolu la ñuy jëflante ak moom bokkul ak nag sàcc bi nga xam ne moom daa këf rek daw ko mel noonu moom bu ñu ko jàppee da ngay gis ne dañ koy duma mais kenn du dagg loxoom ki ñuy dagg loxoom mooy ci li ma li tax ma naan këf daw mooy loo xam ni dencuñu ko mais bu dee lu ñu denc moom su boobaa moom dañ cee dagg loxoom mi ngi noonu te desit bi dañ ko jàng incha allah foogoon naa gën a jeex tey mais temps bi mayuñu ko bu dee ne rek dafa jël masalan kii doon jaay ay mango mu ñëw jël ci benn mbuus daw ñu jàpp ko ku mel noonu la ñu xam ne kii moo ko gëf moo ko jàpp lu mel noonu kenn du ci dagg loxo moom la ñu wax sànq ci waa ji nga xam ne ci étagère bi la nekk jël dara ñu far ko gis ku mel noonu it kenn du dagg loxo la ñuy dagg loxo daal mooy loo xam ne moom denc nañ ko ci les sur waa ji ñëw dem jalgati ko génne ko yóbbu loolu kon bokkul atteb sàcc jëmmi sàcc kese ak atteb agresseur agresseur moom beneen atte la yor mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal la nga xamee ne ni moom mooy loi ki nga xam ne moom moo koy atte moom mooy attekatub lislaam ñun dañuy wax ci cadre général léegi attekatub lislaam moom mooy xool ndax waa ji des na ko teggil loi bi ngir circonstance ñu tuddee circonstance atténuante loolu moom affaire loi la gis nañ ci jamono Omar ibnul Xattaab na sahaaba yi yàlla nattoo na leen atum xiif Omar ne kenn du fi dagg loxo ku sàcc lu mu lekk waaye loolu daa nekkoon atum xiif ñëpp xam ko amaa nag ndax loolu suñ càmm dana ci mën a profité bu mu dem daj magasin bi jàmbur jënd saako ceeb ne sama jabar sama jabar laa koy jox loolee mbokk nekkul daal li ñu mën a wax daal mooy cadre général daal ku fekk lu ñu denc nga jël ko sàcc ko dañu war a dagg sa loxo léegi nag bu fi atteb lislaam nekkoon xëy na imam bay xool lan mooy attem ci loolu naam bismillah naam naam soxna bi ñëw ne la sama jëkkër dama bëgg a teqale ko moom mu bañ dama bëgg nga dimbali ma ma tas ndax am na droit jàppale ko ci loolu naam am nga droit jàppale ko ci loolu su dee gis nga ne la muy wax dëgg la te mooy sëy bi moom lor la ci moom ndax daganul ci jigéen muy ñaan baat lu dul ci lor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne bépp jigéen bu xëy rek di ñaan baat jëkkëram sans lor àjjana du ko xeeñ amma nag bu dee jëkkër ji teg na ko lor goo xam ne yeyoo na mu tas ku mel noonu mu ne jàppale ma da nga ko war a jàppale yonente bi alayhi salatu wasalaam ba soxna saabit ibnu qays ñëwee ci moom na ko yi mu yàlla yónni saabit day gërëm naa diineem gërëm naa jukkoom waaye dëgg dëgg dama ko bëggul dama bëgg nga teqale ñu suñ diggante ak moom yonente bi ne ko am mais saabit bi may ne la benn jardin mu ne ko jardin baa ngi léegi bu bëggee sax ma dollil ko ci yaa ngi dégg yonente bi ne ko déedéet daal di woo saabit na ko parce que bàyyi ko mu dem kon bu dee ne daal xam nga ne soxna si moo nekk ci dëgg te waa ji taxaw ne du ko may baatam te loolu semaine bi rek am naa ci benn cas boo xam ne ni yegg si na ci man koo xam ne nii dafa nekk ak soxnaam mu ne ko may ma baat mu ne du ko may baat bàyyi ko fa dem tekki beneen soxna ba njaboot ak moom kooku ay at mi ngi toog sëyul kenn xamul ala kulli xaal mbokk lislaam xamul loolu islam li ma xam mooy li ñuy tuddee ab séparation de corps loolu yéefir yoo ko xam islam lam ci may góor mënta passé quatre mois bépp séparation bu passé quatre mois islam gërëmal loolu suñu borom mën a fa imsaakun maaruf aw tasrihun bi ihsan da nga koy fase wala nga jël ko loolu dagganul ci góor muy def loolu amma nag bu dee lànk na lànk na yow am ngay pexe soxna si yow ne la jàppale ma su boobaa am nga droit jàppale ko wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam ala kulli xaal la nga xamee ni nii mooy doom bi sàcc alalu baayam loolee kenn du ca dagg loxoom baay moom am na droit jël ci alalu doomam li ñuy bañ rek mooy mu yàq waaye diggante baay ak doom seen alal dafa lënkaloo ba baay deewoon léegi rek alal ji dooma ko moom looloo tax lu mel noonu moom ab yar lañ ko cay yar mais du doon loo xam ne ni dañ cay dagg loxoom amma la nga xam ne mooy soulèvement yi di am ci dëkk yi borom xam-xam yu tombeek moom day dañ koo tere borom xam-xam yu tombeek moom dañ koo tere li tax ñu tere ko mooy lor ga muy jur moo ëpp njëriñ bi muy jur xool leen soulèvement yi am un peu partout dans le monde demal Égypte demal feneen ak feneen ak feneen la fa dee ci ay julit ndax jar na changement ba fa am julit yu dul jeex dee nañ fa président yi fa ñëw ndax tane nañ nañ fa jële yow comme problème donc daal yu mel noonu du ñu ñaax kenn ci ay ndaw muy dem di bokk ci loolu di exposer sa vie ña ca ëpp ña cay dee doo ca dégg doomu ministre doo ca dégg doomi milliardaire doo ca dégg doomi kilifa ay doomi baadoole kese yoo xam ne buñ añee duñu reer changement de pouvoir bi amulu leen benn njëriñ dans tous les pays du monde foo fekk loolu ñoom ñoo cay dee mi ngi noonu yéen ñëpp xam ngeen loolu loolu kon dal moo tax ba mbir bu amee la xew masalan lu mel ni Guinée kilifa yi yeneen réew yi ñoo waroon a daje diisoo seet nu ñuy def waxtaan ba jàmm am fa yéen a ngi dégg ñoo CEDEAO di wax nangam ak i nangam wala boo kilifa yi nekk ci biir réew ma nga xam ne nii dañ leen tuddee ay imam la ñoom ay njiiti diine la ñoom ay nangam jéem a daje xool ban solution la ñuy def waaye ndaw ñi génn leen xeex leen reyante leen su ko defee benn parti bee ñu tuddee leen des militaires et des gendarmes c'est des guinéens beneen population bi c'est des populations ñaar ñiy reyante ñoo bokk ndey ak bàyyi bu kii ne bu bu kii ne laa ilaha illallah kii ne laa ilaha illallah ñu boole leen amma les acteurs yi nga xam ne ñooy sàcc milliardaires yi di yóbbu fu leen neex ñoom ña nga ca kaw bàyyi nag base peuple bi ñoom ñu nekk di reyante seen biir loolee mbokk bépp jeune bu intelligent warul dem di dugg ci loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw sëñ bi est-ce que duñu bàyyi ñeneen ñi parce que tamit question yi dafa mel ni dafay xaw a monopoliser wu ci quelque ñett insha allah waaw bismillah waaw waaw ah waaw waaw xam naa damay jégalu temps bi julli bi sax passé na xam di ci des incha allah bu ñu fi dajawaatee ci ñaan yàlla dajalewaat ñu fi ci jàmm ki nga xam ne dafa dajale ay nit ñëpp ñu lay sarxal way juróom mbokk lislaam xamut loolu islam xamut loolu sahaaba yi xamuñu ko taabiina xamuñu ko man ngaa sax bi fi xewee yàggul laajal mag ñi fi nekk man ngaa xam cinquante ans ci gannaaw doo gis kenn daan woote naan damay xewal sama baay sama nangam xanaa kay léegi la ñu xewal famille bu nekk am anniversaire bi seen baay dee woon wala bi seen ndey dee woon ñu ne ah anniversaire baa ngi nii woote ay sarax sarax way jur loolu lu am solo la na doon sarax ba da ngay jël lekk goo xam ne da nga koy jël jox nit ñi ñu koy lekk wala jël xaalis booy sarxe waaye nag kan moo yeyoo sarax ndax mbokk yeeg dëkk lay ngay wone da nga leen di sarax déedéet sarax dafa am lu ko yóbbu fuqara ak masakin yi su ko defee yow kay mën ngaa bu la neexee sax rey sama xar wala rey sa nag tong tong ko xool ñoo xam ne ay néew doole la nga sarax leen ko jël ceeb jël sarax leen ko jël xaalis sarax leen ko bañ ko wutal bis du 40 jours de un an du nangam loolee li islam xamoon amma nag woote nit ñi ñu ñëw nga dajale mbooloo ne da ngay saraxal loolee dafa dab l'islam islam xamu ko woon incha allah ñu jéggulu mbokk yi ba yàlla dajalewaat ñu fi di ñaan yàlla lañ ko doon ñaan naka jekk lépp lu jub ci wax ji ci moom la jóge yàlla nañu wërsëgal ñu jëfee ko lépp lu ci njuumte yàlla nañu ko jéggal te wërsëgal ñu xamal ñu lay dëgg ñu tapp ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain